géej gi nag moo doy waar booy yéemi ab gaal goo xamante ni mu ngi defoon ay gone yi doon dem sa Espagne waaye mu jëw na yegg seen gaal googee ñëpp a faatu ci gaal gi ba gaal gi di tëmb nag ci géej gi ay nappkat ñoo ko dal gis bañ ca yeggee lañ ca gis yéemi na lool marine nationale nag ca la bogo bogo ay moyen dal dem nee na nag gën tuuti fanweer ci ay ndaw ñoo xamante si ñàkk nañ seenu bakkan bu yàqu bokk na si nag ñaar ñoo xamante a kaw la barsax naka la marchand de la mort naka fi ñu doon yi taxawee nag ak recrudescence boo ni moo am ci drame yi police ak gendarmerie yi daaw ci atum l'observateur yéenekaay bi ne lañu gis sa gaal ga naka moo yéeme naka ba loxo bu ko dégg rek dal dee dar gémmiñ yéenekaay bi ne fi SSMB 24 naka loolee nañu tuddee gaal bi nga xamante ni si moom lañu dal dee fekk ci biir bi te loolee nag daanaka moo indi piste bi nga xamante ni moom la a tegu ba dal dee def ab l'enquête boo xam nag gaal boobee fan la jógee boo xamee ñi si jote nekkoon yéenekaay bi ne gën caa tuuti fanweer ak juróom ñett ñoo xamante ni si ñoom ñëpp dañoo ñàkk seen bakkan bu ñàkk boo xamante ni si daanaka tàmbali nu yàqu bu kenn mënu dina xàmmee loolee tax nag ñu daal dina bogo boge marine nationale indi leen naka fintoone ba nar leen a suul suul boo xamante ni daanaka dina xaw yéeme lool libération yéenekaay ne baal boobu le gaal ñu fekk ci waa waaxu ndax vox populi na fintoon yi bañ leen gisee nañu yàqoo nag moo yéeme ba fintoon yi daanaka defar leen dina jafe lool Sud Quotidien li war a jafe kay mooy année scolaire 2024 bi nag jàkkaarloo ak sas yi nga xamante si moom la war a yëkkati daanaka ay fan yu néew néew rek moo daal dee des ngir ñu jëm ci ubbiteef boobee ci atum 2024 2025 l'école sénégalaise nag am na ay sas yu bëri yoo xamante ne si ngir ñu amal ab ubbiteef bu mucc ayib ubbi tey jàng tey ndax dina mën a nekk yéenekaay bi ne gaañaa ngi koy waajal ngir fexe rek ba école bi bés bu ñu ubbee ay buntam rek bés boobee nag ndongoy dugg si kaaraas yi mën a jàng ñu dem ci leneen nag jàng ko ci les écoles yéenekaay mooy garde à bu Lat nag ñu prononcé jaarale ko ci yoon naka da ci ndax Lat Diop dafa naka partie civile ci mbir moom mi nga xamante ci moo laalee ci mbiru Lat Diop jamono ji l'observateur yéenekaay ne fi yi daanaka taux de bi naka mbir ma gën yéeg ëpp na foofu naka la amoon ci atum ndax ndaw ñi ci jamono ji naka gis xëy ak gis nag daanaka biddiw bëccëg noo dal yem mbir ma jafe na tar na bu yegg ci lool ay waaye xëyum ndaw ñi kañ lay am saafara lii amagul saafara wal fajri quotidien moo ngi si xëy dikkat dikkaat muy campagne électorale ak difficulté yi nga xamante ni moo lalu ci wàllum koom-koom naka la taskatu xibaar yi naka war a taxawee bu am li nga xamante ni si moo di neutralité maanaam mëngale yëpp ndax jamono ji nag mbir mi tar na tar boo xamante nañu am ay convention avec des candidats Ibrahima Lissa Faye président appel nee sans la presse citoyen yi naka mënuñoo am li nga xamante ni si moo di choix éclairé Ibrahima Bakhoum formateur si wàllum taskatu xibaar nee corruption bi nag mooy nourrir le manque de des entreprises kon mbir mi dina doon li nga xamante ni dina jafee régler li ñu régleegul mooy législative ak na ca gaay yi naka joxante loxo yéenekaay bi ne législative boobee aar sàmm sa kàddu cey loolu élection législative yi neex na ba noppi mbir maa ngoog ñoo ko déggandoo jaa ngeen jëf ba ëllëg